dikkati na bu ñuy di dey ci réew mi ñeneen a ngay ras dem tribune yéen a kaay naan maan bi bari na ci candidat yoo xam ne rasaatu déem a leen fi indi diggante homme d'état ak ñoo xam ne ay opportuniste d'état lañu yéen a kaay bi naan maan ñenn ñi moom politique la ñuy daal di def te dara juralul seen politique boobee dul fas yéene jiiroo am amuk réew mi jiiroo ñenn ñi moom dañ caa dugg bu ñenn ñi jiiroo ba noppi daal di leen ci sédd ñu daal di roof ci seenu gafa ceen ci maayin a kaay naan maan dama ni la am na ci ñoo xam ne daal ñuy dem jël fiche de parrainage quartier ba ñu dëkk kenn xamu leen fa te taxu leen a ñaabar ñaabari déposé ci caution de déedéet moom kay jël na ñu fiche suñu paree nag wëraat autorité yi ku ci nekk nag ñuy waxaale ak yow nu ñuy def ba daal di lonkoo ak yow su ko defee nag boo faloo mën leen sédd wala it ñu ànd ak yow ci campagne bi man caa séddu waxaale gu mitti yéene kaay bi nan man moom ci langue politique bi opposition bi moom boo ci dindee opposant classique yi diggante Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany Déthié Fall Malick Malick Gakou Idrissa Seck Mimi Touré Abdourahmane Diouf Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye Khalifa Ababacar Sall Karim sa Wade ku ca desati ñii nag loo ci manti de git ñooy opposant classique yu régime yi su xeer génnee ñoo koy jor su wax dëgg jotee ñoo koy wax coonog askan wi bu jotee ñoo koy daal di goxi wax ko ñeneen ñi moom ne ñu dañoo samp ndënd ngir teqali sénégalais yi akub coono mani la ba sénégalais yi di sonn fan lañ nekkoon masuñoo gàddul sénégalais yi benn ci seeni combat benn fu mu mettee ñi ngi ni ci yàlla ci seenu ñu dindiw lii ñu ne askan wi ñu bëgg a texaleeg coono eh lu cay dëgg yéene kaay bi naan man en tout cas bu ñu nee opposant yi ci boppam warees nañoo néew ci élection présidentielle yi fi mu ne nag ràññee kan mooy opposition ak ko nekkul moom mooy coow li terewul gaa yaa nga ca dépôt caution le ak actu naan man bugaan géej dañuy déposé na démb l'évidence yéene kaay naan man jiital gëm sa bopp daal dinay tegati geneenu jéego jëm ci élection présidentielle 2024 bi le regard naan man mooy dépôt caution ba tribune yéene kaay naan man en tout cas loxo ci poche bugaan def na ko daal di génnee jox mandataire ba Mamadou Gueye mu ñaabari ñaabari daal di dem ci caisse de dépôt et de consignation daal koy déposé Gueye nga naan fi mu toll nii beneen acte lañ def gannaaw bi nga xam ni keroog investir nañ Bougane Gueye Dany fii ci place de l'Obélisque daal di gagné pari mobilisation waaye tam discours bu am solo mu daal di ko fay def léegi nag parrainage yi moom fukki fan ak juróom ci ginnaaw jeexal nañ ko la ca des nag mooy déposé suñu dossier de candidature Gueye naan ña ca de jàpp nañu dat te dat woowee suñu data duñ en tout cas yàggul dara natt nañ ko nattaat xool ba sës bi gën dees da dem mani la ca conseil constitutionnel daal fay rig suñu candidature géneen jéego daal di ñuy dese nag muy élection présidentielle 2024 yi turbine a ca de dépôt de consignation déposé caution am jaaree fa yi daal di gi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal laas yéen a kaay nan man boobu Sonko fayal laaxu la nga xam ne ab dogal la ne Ousmane Sonko nañu rig turam wi ci électoral wi ci loolee ki noonu it mandataire am sukkandiku ci ngir dem jëli fiche de parrainage ba ñu ne leen du fi réew nan man ayib dafay fëgg na fa fëgg neexee waaye tam fëgg na fa nga xam ne fa lañ ko war a ubbilee foofu nag moom moo di daaf ndax loo ci manti déggit gannaaw décision de justice bi moom daaf ci boppam moo war a jël tur Ousmane Sonko bi riigaat ko ci liste électorale bi réew mi ko dañee nan man buntu boobee la ayib dafa fëgg te buntu boobee moom ma ta fëgg 24 heures yéene kaay naan man ma ne la daaf lu muy xaar ngir dugalaat tur Ousmane Sonko ci liste électorale bi xam xam nga décision de justice dañ koo war a tàmbalee respecté nag ci réew mi maître Bamba Cissé naan en tout cas autorité administrative yi dañoo war a tëddee njaaxaanaay na yaayu seex wuy nampal la ñu waatoon keroog bi ñu leen di jox seeni lijaa sañu daal di koy jëfee ndax nag luwaa ci boppam moo sut lépp te loi moom moo ne Ousmane Sonko dañu riigaat turam wi booba bés bi la jour mag may xamal ne Amadou Ba dey ma ngay dëkk président Macky Sall diggante jàmmalaay ba nga xam ne defee woon na fa congrès d'investiture am moom président Macky Sall ak Ruqus King Fat Palace ba nga xam ne fa la Amadou Ba nar a jublu ndax Amadou ci boppam dina mate lañ ko doon xaaree l'observateur nan man en tout cas secrétaire général ba woon bu l Mamadou Ndoye ma ngay xam le ni buñ tegee mbiri ci yoon deuxième tour sax ma ni la amadu Ba du fa yegg ndax bi la ngu président Macky Sall bi ci boppam baaxul neexul Mamadou naan université bi nga xam ne dinañ ko ci Ndakaaru moom dees na ko saytu léeg fa yéene kaay naan kon boobu lu mësta am ci réew mi moom moo am ay maire yoo xam ni nag daal dinañuy soobu ci collectif fas yéene jàmmaarloo nguurug Sénégal maire yi neenu dàqunu sax defub toogaanub ñaxtu ngir lan leen digoon ngir ñu mën ko jébbal seen ne administré ñu matal ko téeméer ak fukk ak ñeent la ñu woon fi ne ñu ngi ci téeméer fanweer ak juróom-ñaar intérêt ba moom moo di défendre commune yi nekk ci Sénégal ñu jébbaleen ay programme yi ñu leen digoon yu ci mel ni PACASEN xëyu ndaw yi FERA PUDC ak yeneen ndax ne ñu gannaaw digéel yi amul lenn loo xam ne jëfe nañ ko ci réew mi te mu soxal la ñu digee woon ak mairie ngir ñu doxalal seeni askan vox populi naan kon boobu baykat yi day ñoo tële doxal ndax nag point de collecte yi ci boppam sax dafa amul foo xam ne baykat yi mën nañ faa teg seen gerte daal di jaay tribune yéen kaay naan nay tex-tex may ree mi ngi tàmbalee am ci réew mi ci projet 100000 logements li ñu amal ci réew mi ñaar fukk ak juróom ci ay caabi jébbal nañ ko ñoo xam ni yàllaa tax di ay logement yoo xam ni ma nga nekk ca Kébémer Abdoulaye Seydou Sow daal di koy jébbal si Simbeng bu SNHLM yéeni kaay bi naan man ay wiil yu yees lañ war a taxawal tàmbali nañ ko ci Kébémer dana dem ca Kaffrine Kaolack Vélingara ba ci sax Ziguinchor coor kaay bi dee média bi naan man ca Diaspora Awards bi daal dina ñuy jébbal raaya Seydina Seck taskatu xibaar Seydina Seck daal di jëlaat raaya gi ne naa ko ndem si yàlla Mamadou Njaay Doos ci xam-xamam ci maandoom waaye tam Njaay Doos ci taxawoom jëm ci diaspora bi bëccëg bin jagleel orphelin yu Riyal yi sëriñ Koso Mbàkke daal di ñaanal bu baax Boubacar li ma nga xam ne moom moo di paree ba ñaanal koy ci jëf yi nga xam ne dakkalu ko benn yoon di ko def ci jàppale ñi nga xam ne amatuñ waajur turbine naan man Roqaya Toga Fay di mamitoo du xibaar ma ngay ñaaxit soxna yi ci entrepreneuriat jaarale ko ci ñoom ak ci ndaw yi yéeni kaay bi naan man mi ngi ko jaarale ci foire boo xam ne mi ngi ko war a def ci Ndakaaru l'observateur naan